bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad ibn abdillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi ila yawmi ddin sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu cheikh mahamadul muntaxa mbakke euh, xalifa général wala xalifatul am li taifatil muridiya di nuyu sëriñ muhammadul muxtaar mbakke nekk xalifa fii ci daaru xudus di nuyu sëriñ Seydi Mbacke Abdoul Ahad di nuyu sëriñ Abo Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Fadil e di nuyu sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu nekk xalifa Cheikh Ibrahima Fall di nuyu sëriñ Abdoul Karim Mbacke borom makaarimul axlaax waaye di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke Gaynde Fatma euh, di nuyu waa Touba yëpp di nuyu xale yi di nuyu mag ñi di nuyu ñi fi nekk ñëpp euh, di am mbégte nag teew fii tey pour ñu waxtaan waxtaan wi mu ngi jëm ci wàllu islaam nee nañu ak politique euh, islaam ñun ñëpp ay jullit lañu nekk ay taaliba xadimu rasul réew mi di Sénégal ñu dëkkee fi moo ñëw ci jamono jamono politique xew te politique yàgg lool ki njëkk a ba tasaare àdduna bi yépp l'islam mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa waaye bi fi tubaab yi ñëwee coloniser Sénégal euh, defe naa ne politique tubaab yi gis nañ ko seen politique mooy ñu coloniser Afrique coloniser Afrique jël sunu jël sunu alal jël sunuy jël sunuy doole ndax sunuy maam lañ daan jàpp da leen yóbbu suñu alal ji fi nekk yépp ñu jël leen yóbbu ko lépp loo xam ne lislaam la nekkoon fi ñuy taal daara yi bëgguñu alquran di taal daara yi di jàpp sëriñ maanaam di jàpp sëriñ yi diggante sëriñ Touba ak tubaab bi defe naa di ëmpul kenn ngir lan bañ lislaam mais bi tubaab yi dem dañ fi bàyyi yeneen doomu aadama yoo xam ne tubaab yi ñoo leen jàngal ay doomu sénégalais lañ jàng nasaraan tubaab bi sarse ci ñoom lim bëgg ñu mel ko pour ñu taxawal pour maanaam pour mu représenter tubaab yi fii ci biir ay nit ñu ñuul lañuy doon Jóob lañuy sant wala Njaay doon ay sénégalais tubaab yi sol ci ñoom la bëgg ñu mel ko ak nañu bëgg ñu téye ko biir Sénégal ñooñu nag tey ñoo fi nekkal tubaab bi ñu ne mooy ñi jàng tubaab suñ doom yëpp ah ay tubaab la ñu jàng pour nga liggéey ci Sénégal ci administration il faut que jàng tubaab maa ngi koy wax léegi ci néeg bi ne fii boo fi jàngee alquran gouvernement Sénégal soxlawu la lan la la soxlaa ñaan gis ngeen suñu service yëpp ni leen politiciens yi di utiliser sëriñ bi maa ngi sàkku ci ñaan mais laajuñ leen seen xalaat ci réew mi ni muy doxe kon dafa am fu ñu cadré fu ñu yemale nitu diina dem na ba dem na ba nit ku yëngatu ci diina muy sëriñ dégg ngeen Sénégal yépp li ñuy wax sëriñ si nañu génn ci politique bi même sénégalais yi nga xam ne ay Sénégal lañ tubaab yi wan nañ ne leen nitu l'islam warut yëngatu ci politique ba tax na tey bu nit jógee nga dégg ñu ne sëriñ diw mu ngi parti diw wala sëriñ diw mu nga fële nga dégg ñu ne wala kilifa yeeg nitu diine yi nañu génn ci politique loolu ma ne naxaate la amul kenn ku ne xam na ni sëriñ Cheikh Abdoul euh, sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane amoon na parti politique parti politique boo xam ne sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yëg na ko xaritam la woon ñu ànd ak moom ki nga xam ne mooy Cheikh ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Niass yëgoon na ko àndoon na ak moom kilifa diine yépp àndoon nañ ci parti politique bu Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ndax am na vision bu dee vision ak lu defee lan mooy politique maa ngi koy wax léegi politique mooy nañu fexe Touba am ndox ndox mu neex politique mooy nañu fexe Touba ku fi feebar nga faju faju yomb la politique mooy nañu fexe ba Touba am sécurité bu fi kenn agressé kenn Touba mooy maanaam lan mooy politique mooy nañu fexe ba nit ñi am dund dund bi yomb loolu de mooy politique. loolu su fekkee ne mooy politique mais islam moo ci jiitu islam moo ci jiitu lu tax loolu nekk politique ñu bëgg leen ci seppi seeni loxo ne leen yéen amu leen xalaat ci réew mi jël nit ñoo xam ne ay taalibe tubaab lañ tubaab yi ñoo leen maanaam léegi ñoo leen tàggat ñu jël leen jiital leen ñuy jël parce que nag sam noonu mënta yore sa économique. sa noon heure bu la bëggee xiif nga xiif nañ fexe ba sunu économie ñoo ko yore sunu sécurité ñu yore ko loolu nag pour mu am mooy il faut nitu diine yi dugal seen loxo ci politique fan kan moo jàng ci alquran nga gis benn aaya buy wax ne politique dafa man léegi politique dafa xaraam wala nga jàng benn hadis ci yónnent bi nga ne politique dafa xaraam yónnent bi moo njëkk samp état islamique te Madinatul Munawwara muy état islamique Abu Bakrin Sadiq nekk premier xalifa yónnent bi état la yore woon Omar ibnul Xattaab deuxième xalifa yónnent bi état la yore woon Ousmane ibnu Affan état la yore woon xalifa a rashidun yépp kenn ku ci nekk état nga yore di ko doxal di ko doxal ci du anam boo xam ne maanaam barki dem rek maa ngi wax ne Angleterre day Angleterre day nekkul réewu l'islam mais seen politique yépp ci l'islam lañ koy jëlee bi fi crise économique bi ñëwee at yi passé xaw ma 2008 xaw ma ñu banque yaa ngi tëj banque yaa ngi am problème tubaab yi jaaxle américains yi jaaxle ñu ne crise économique moo am mbooleem banque bu doon jëfandikoo ci système bi yónnent bi jàngale banque yooyu amuñu crise finance islamique amul crise waa Angleterre na ñoom ñëpp dañuy jël seen banque yi ñu sopp ko finance islamique ma ne leen déedéet ku ci sopp sa banque finance islamique di julli di nga woor di nga génne asaka islam lépp ngay jël wala nga bàyyi lépp pour ñun jullit ñi ñoo xamul li ñu yor mais suñ noonu yi ñuy tuddee noonu ñoom li gën a baax ci seen réew yépp ci l'islam lañ koy jëlee yépp ci enseignement Seydina Muhammad lañ koy kon nañu bàyyi nitu diine yi nañu génn ci politique amul dañuy nax ndax itam euh, dañuy wax sax ne nitu diine yi bu ñu dugalut seen loxo ci maanaam léegi ci politique kon nit ñu tekkiwul dara ñoo leen di jiite su boobaa su mbon ngi tasaaroo bu ndon ngi tasaaroo sàngari si tasaaroo jigéen ñiy def lu bon loo ci man parce que yaa toog seetaan ku tekkiwul dara jiite la kon dugalal sa loxo ci politique bi boo demee ba fa ñuy fasee ak ci nocci ngay fas lu baax di nocci lu baax loolu mooy li mais bu ñu roccee suñu loxo ci politique ne dañoo seexlu politique araamul dafa am ñaari borom xam-xam yu doon werante ci wàllu politique kenn ki Diyaa'ul Haqq la tudd kenn ko tudd Mawdudi Mawdudi def ko benn lettre ne ko yow da ngay politique rek te politique bi vraiment yow ak ni nga doonee xam-xam mu ne ko man saabu laa rek saabu damay fóot bu seetee rek ma bàyyi leen ko dama gis sama réew tilim ma doon saabu di fóot damay fóot bu seetee rek ma bàyyee leen ko kon bu fekkee ne politique bi dafa tilim nitu diine yi ñoom ñu seet yore saabu nañu soobu ci biir fóot Sénégal ba mu seet wecc bu leen neexee ñu bàyyee leen ko mais génne ci seen loxo responsabilité bu rëy li ci kanam yàlla ci kanam yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu il faut ñu bàyyi ci xel li ma ci am solo nag mooy fii ci Touba Sëriñ Touba tuddee ko Touba al Mahrousa Touba goo xam ne yàllaa ko sàmmal boppam Touba al mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu sell la doy na ci dëkk bu sell mooy Serigne Touba bàyyi ko na Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol bàyyi ko Mbàkke Bawol ñëw Daaru Salaam dëkk yooyu yëpp mu ngi fay jaamu yàlla mu ngi fay tagg yónnent bi mu ngi fay yar jullit mais bi mu jógee Daaru Salaam ñëw Touba gii de. daf ne Touba gii moom dama ko sanc ngir lan mu ne ngir jaamu yàlla kese kese kese kese kese lay doyee Touba Sëriñ Touba nee na Touba gii ci laa jàkka jàkkaarloo Rasulullahi jaxarat bërëb yim dugg bari na lool mais nee na Touba la jàkka jàkkaarloo yónnent bi sallallahu alayhi wa kon li ci mën a dégg mooy Touba gii la Sëriñ Touba amee li doon wut ci yàlla yépp ci biir Touba la ko amee xam nga bi mu bàyyee koo bi mu bàyyee koo gaboo bi mu ñëwee tubaab bi dañ koy yóbbu fii ci Jurbel ñu koy tuddee buqaatul mubaaraka téye ko foofu sëriñ Tuubaa na mu Tuubaa lool bëgg a dugg ci dëkk bi lool ndeysaan di def tadarru ilallaahi ilaahi ilaa tuubaaya yow sama borom ca sama tuubaa ilaa tuubaaya mooy ca sama tuubaa ca sama tuubaa xut nii wa salliman yow yàlla yàlla nag ma womat te musal wa jutli bi imtinaanin sàmm wal tu amini turba yow yàlla na nga ma xëcc indi ma Touba te Touba boo demee nanga nga sécuriser tuubu suufu Touba na nga ko sécuriser moo tax ñu xam ne Touba lu fi nit def ci lu baax Serigne Touba mu ngi jàkkaarloog moom Touba lu fi nit def ci lu bon Serigne Touba mu ngi jàkkaarloog moom moo tax maanaam boo maanaam bëgg fi dëkk yomb na waaye man fii dëkk yombul bëgg fii dëkk yomb na waaye man fii dëkk yombul ndax lu baax loo def Serigne Touba mu ngi jàkkaarloog yow lu bon loo def Serigne Touba mu ngi jàkkaarloog yow bu fekkee ne moom laa la waxoon ne la politique mooy fexe ba dëkk bi am ndox politique mooy fexe ba nit ñi buñ feebaree nañu faju politique nañu fexe ba sécurité am politique nañ fexe ba nit ñi jàng am xam-xam politique u Serigne Touba de te mooy politique u defe naa tubaab yëpp moom la ñuy roy Serigne Touba politique li ñuy tuddee mooy politique bi mu ci njëkk jiital mooy politique u jàng bi muy yar nit ñu def leen jàngal jàng nga tasawu du sixaar jàng nga tasawudu suban tasawudu sixaar mooy enseignement primaire tasawudu suban mooy enseignement boo xam ne mooy enseignement supérieur bi mu waxee xale yi bi ñu nekkee ndaw ci wàllu jàng xale yi ku koy defar da nga koy da nga koy jox xam-xam euh, ci tasawudu sixaar euh, boo demee ba ci tasawudu suban encore mu wax ak jeunes yi buñ ne politique ndaw ñi rek ñoo ci am solo parce que Sénégal ci loxo ndaw ñi lay mujj bu ëllëgee waaye Sénégal ci yan façon ndaw lay mujj ba ëllëgee c'est très moo tax Serigne Touba bi muy defar ndaw bi politique bi mu am politique éducation bi mu am mooy dafa defar xale yi ba ñu nekkee xale yaa ayyuha sibyaanu la tastaqilu an il huda wa bil ulum istaqilu bi nga demee muy enseignement primaire bi nga demee ba nekk université mu defaral la téere tuddee la tuddee ko tasawudu subaan foofu la nit ki di amee qualification foofu la nit di amee formation yaa ma'shara subaani in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman ala al amal waaw léegi lii problème mu Sénégal problème mu Macky Sall Ablaye Wade ñoom ñëpp gis nañ ne jeunes sénégalais yi amuñu qualification Sénégal jeunes yi amuñu qualification dangay jàng ba am ba dem université am licence am maîtrise mais manoo dara amoo formation amoo formation moo tax mu ne yaa masara shubaani in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman ala al amal yenn xale yu góor yi su ngeen bañuy rus bu ëllëgee balaa ngeen di liggéey te na ngeen jàng ba am xam-xam am formation ngeen doog a dugg ci am liggéey léegi nag bu ñu nee politique jeunes yi su bu ñu nee jeunes ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñoom la ñëpp utiliser ji nga politiciens yi fii koo ci wax dafa naan jigéen ñi ak xale yi mais doomu aadama booy dugg ci dara am jigéen ñi xale yi mais li nga dugg réussir na mais booy dugg ci dara xale yi daw la jigéen ñi daw la boo yeboo tëral ko xam ne doo dem jigéen ñi la ñu ak xale yi xale yi nag li ma bëgg mooy li ma bëgg ci xale yi mooy dina xale yi nañu yeewu xale yi nañu yeewu bu la kenn sànniloo xeer bu la kenn tojloo ci mbedd mi gis nga fii ñi nga xam ne ñooy leader yi kenn ku ne sa doom ñu nga Amérique sa doom a nga France làkk nañ seen doom yi ñuy jànge ci école yi gën a kaw maanaam ci école yi gën a kawe yow doomu baadoola bi fi ne nga xam ne yow liggéeyoo amuloo liggéey joxuñ na liggéey yow ñu jël utiliser ci mbedd yi ngay toj loolu doomu aadama yi nañu yeewu bu ko kenn politique mooy bu bés bi jotee nga dem sànni sa carte dem teg sa ataaya dem toog bu ñu génnee résultat yi Sénégal continuer Sénégal Abdou Diouf Senghor a fi nekkoon Senghor dem na kan moo fi nekkoon Abdou Diouf ana Abdou Diouf kan moo Sall ma Ablaye Wade ana Ablaye Wade Macky Sall nekk na fi day dem keneen ñëw Sénégal mooy continuer Macky Sall moomul Sénégal Ablaye Wade moomu ko senegal senegal la su ko defee yow mi doon senegalee parti bi parti bi li ñuy wax parti bi dafa nekk ileer ileer Sénégal mooy tool bi APR ileer la ileer AFP ileer la PDS ileer la PS ileer la ban tool lañ bëgg a bay toolu Sénégal APR ne man sama ileer bii laa koy bayee mooy ileeru APR Ablaye Wade na déet man ileeru PDS laa koy bayee eh, eh, Moustapha Niass na déedéet man ileeru ah, ah, PE maanaam eh, maanaam ileeru AFP laa koy bayee kon li ma la bëgg a wax mooy parti yi ay ileer lañ yu ñuy bayee tool bi tool bi mooy Sénégal waaw léegi na nga jël sa ileer AFP kee jël ileeram PDS kee jël ileeram PS ñu koy tojantee bopp su boobaa xamuñu lan mooy politique ileer bi waxuñ nga toj ci sama bopp bi ileer bi mooy dagg ci gajj yi bayal Sénégal lañ la wax politique ñun dañ ciy dugg fonk ko te xamuñu ko te loolu c'est très grave euh, législative yi passé dañuy waxtaan en tournoi législative yi passé dama seetaan France 24 France 24 ni Sénégal toll ñu génnee tuuba gis ni ñu tojoo hernie yi jël carte yi sax ñuy commentaire ne ville religieuse bu Serigne Touba fi ma tëdd dafa am métti Serigne Touba jàngale wut nii kon il faut ñu def attention ndax. bu ñu xamulee ñu sëlëx ñu politique rek ñuy def li ñuy def di rayante ñu nente xamuñu ko ña tax ñuy rayante seen doom yaa nga France seen doom yaa nga Amérique ñoom ñoo ñu jiite bu subaa seen doom yi ñëw jàng jiitewaat ñu yow su boobaa lan mooy sa taxawaay ci biir Sénégal nañu yew nañu jàng nañu bëgg lu baax nañu xam suñ bopp nañu xam Sénégal bu ñu kenn utilisé ci ay caaxaan loolu moo tax loolu mooy biitu conférence bi moo tax maa ngi kontaan ci Cheikh Abdoul Ahad bi mu jël fit bi mu am ne dafay taxawal conférence islam ak politique fii ci Touba c'est très important ci courage boobu parce que loolu euh, mbokk mi wax na ko léegi euh, nee na ko dëkk bi seen dëkku maam la effectivement li maam deferoon bu ko sët yàq loolu tax te gis ngeen ku ne gis nañ li xew Touba ci législative yi ñuy bañ loolu bi amaat ci présidentielle yi kenn ku ne wooteel dem sa kër bul toj dëkk bi dëkk bu sell dëkk Sëriñ Touba wax naa leen ci commencement bi lépp lu fi nit def ci lu baax Serigne Touba gis na ko lu fi nit def ci lu bon Serigne Touba teg na ñu te fii da nga fiy nekk yokk wala nga nekk fii ko ba ila yu bitin Serigne Touba moo ko waxal boppam ci lu leer la ko wax loo xam ne nit ñi gis nañ ko xam ko doon na wax ne waa wa ajil xuruji min uyubi jamiiha wa qutni ila Touba wa anha isrifil jadba dëkk la boo xam ne daf koo bëgg tuddee ko nee na Touba Touba mooy àjjana am na benn bayit nee na yàlla tuubaa gi na nga ko def mu mel ni turandóoram jëlal tuubaa def ko mu mel ni turandóoram turandóoru tuubaa mooy ajjana firdaws ki dem ba ne sama dëkk bi yàlla def ko ne ajjana xam ngeen ajjana amul caaxaan ajjana amul caaxaan malgré que caaxaan jeex na ajjana fa la yàlla fayee jàmm yi amul julli amul woor amul def dara parce que fayookaay la fan fan moo am julli muy kër gi fii lañuy ñuy jàmmoo yàlla ba yombal xiyama yàlla fayu ko wax mooy Euh, nañu sellal suñu nekkin ci politique Sénégal yépp lay wax rawatina nañu nekkal suñu suñu suñu suñu suñu politique suñu sellal ci politique rawatina ak Touba gi ñu nekk. Touba politique a mënta ñàkk mais yépp pare na Touba Serigne Touba defar na yépp heure yi jot muy ñëw rek mais Touba pare na mais aadama day yëngatu boo nekkee jamono da ngay yëngatu jaamu yàlla la alxaraka baraka mais Touba pare na Touba kan moo ko pareel Serigne Touba def na yépp yépp pare na. lépp lu ñaan yàlla yëpp dina ñëw Touba kon ki dëkk Touba bi yëngatu nañu yëngatu ci anam bi gën a rafet nañu bokk ndey nañu bokk baay politique du tojante bopp politique du noonoo politique du bañante politique du reyante politique mooy nañ ànd xool lan mooy intérêt Touba ñun ñëpp ñu nekk benn fexe ba Touba gën a avancé ci réew mi loolu mooy politique mais ñunu neen ci Touba ay taalibe Serigne Touba ñunu neen ñu dégg ne ñu ngi rayante ñu ngi toj dëkk bi ci wàllu politique et eh, du noonu du noonu kon nañu moytu yi nga xam ne ñuy def Cheikh Abdoul Ahad li may wax ci moom waxoon naa ko léegi ñun liñ xam rek la ñuy wax kenn moomuñu li xam rek la ñuy wax dama la wax ne la réew mi boo jàngee alquran bokkoo waxoon naa ko waxoon naa ko man nag dama gis ne moom il est bien pour mu représenter Touba ci gouvernement bi parce que intellectuel la dafa dégg français dafa dégg arabe kon mu représenté Touba ci gouvernement Sénégal c'est très important li fi mën a indi lu bari lay doon te li ma wax leen ko dafa dégg tubaab dafa dégg arab te boo ja boo déggee arab kese jàng alxuraan kese bokkoo kon nañ jël ñi ñi mën a représenté dëkk bi ñu doon ay intellectuel moom nag gis naa ko ci te léegi balaa ko doon wax mbokk mi ne mbaa di ko wax ma ne ko dégg du ma ko wax mais wax ji moom bu dëggoo rek li may wax defe naa ne ñun propagande luñ kenn mais li ñuy wax ñëpp gis nañ dafa dégg français dafay làkk français bu may bu doonoon ministre dina xam bu doonoon député dina xam bu nekkoon directeur dina xam man mi jàng alxuraan utuma place ci gouvernement bi parce que bokkum pour nga bokk mooy il faut nga jàng tubaab yàlla dogal loolu tekkiwul ne ku jàngul tubaab doo dund déedéet ñi fi ëpp xaalis bu ñuy signé alxuraan la ñuy signé ñépp fi ëpp alal ci Sénégal bu ñuy signé alquran la ñuy signé yàlla ko def waaye l'essentiel pour administration il faut nga jàng nasaraan kon bu ñu bëggee jëriñu ci politique nañu xool ñi nga xam ne xam nañu mën nañuy représenter Amérique mën nañuy représenter France ñu jël leen jiital leen bu ñu leen jiitalee njariñ li ñuy indi ñun ñëpp ñoo koy jëriñoo mais bu ñu amul ku ñu représenter mais du ñu am dara ah. du ñu am dara loolu nañ ko xam nañu nañu ràññee nañu ràññee. ñi ñuy jël tànn leen ñu féetee ñu ci kanam nekkal ñu suñu représentant ci gouvernement bi moom nag gis naa ko mu nekk intellectuel gis naa ko mu nekk ku dal gis naa ko mu nekk ku baax vraiment euh, muy way juram Cheikh Ahmad euh, euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Mbacke Gaynde Fatma borom xam-xam bu mag la woon ñun fekkee wu ñu jamonoom waaye gëstu nañ lu bari ci ay mbindam intellectuel la woon borom xam-xam la woon bañkat la woon. sama grand père rek El Hadj Socé mu ma yónnee benn bi ñuy bind axwalu shaxsiya bañ gi mu bañoon moom gaynde Fatma jox ko Cheikh Abdoul Ahad mu ne ko li nga wax laa wax jox ko Cheikh Abdoul Cheikh Mouhamadoul Fadel mu ne ko li nga wax laa wax kilifa ci Touba yépp ne ko li nga wax lañ wax kilifa ci Touba woon ñoom ñépp ne ko mu nga si sama kër maa ko yow ñépp d'accord ci li ma kon kooku intellectuel la woon boroom xam-xam la woon jàngkat la woon li ma bëgg a wax daal mooy bu ñu tojante suñuy bopp bu ñu reyante bu ñu bañante nañu bëggante te xam ne benn intérêt lañ am muy Sénégal bu dee Touba benn intérêt lañ am muy Touba bu ñu reyante bu ñu yàqante nañ fexe ba lépp luy njariñ loo xam ne te politique mën na koy indi Touba ñu xool ci loxoom gudd ñu jiital ko ne ko demal nga teewal ñu ko mu jël njariñ li indi ko su ko defee ñëpp jëriñu loolu mooy politique ñu ngi gërëm ñëpp vraiment ñu ngi sant ñëpp dañuy ba ñu jël temps bi ba tax na dañu koo tënk rek vraiment ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp euh, di gërëm itam euh, di gën a gërëmaat Euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké parce que nag gannaaw yàlla ak yonent bi yàlla def na lii moo ko organisé ah bëgguñu man man dama ne ko sax moom dafa bëgg ñun ñu yokk moo tax mu invité ñu dama koy gërëm ci woo gim ñu woo fii ndax bëgguñu ñu yokku la ndax ñëw ci dëkku Serigne Touba bi di góorgóorlu ci luy tax mu gën a te lépp baax na waaye fexe nit di gën a xam dëkk bi nekk loolu ku ko sant jaamu yàlla nga ko def ci man maa lay gërëm man lay sant kon defe naa ne loolu la war gërëm ñëpp vraiment ah, di sant ñëpp li ñuy ñaan daal mooy li amoon ci législative ba tubaab yi jël ko tubaab yi jël ko naan Touba la dëkku Serigne Touba la ñoo toj erni yi ñoo xotti nañ fexe ba loolu bu mu am ci présidentielle bi bu ñu ko kenn def la ndax bu fekkee da nga jël candidat candidat bi tax nga koy def te candidat boobu mais na la ko Serigne Touba gënal nañu Serigne Touba gënal candidat yi bu la kenn tojloo erni bu la kenn yàqaloo nit parce que candidat yi jaruñu ko candidat yi jaruñu ko da ngay seet sax ñoom gëmuñu sax sëriñ si seen intérêt lañ xool ci sëriñ si ñu ñëw fii ko su ko defee bu la kenn tax a yàq demal nga woote ñu ñëw toog sa kër Sénégal continuer l'islam continuer jàmm continuer leen na ko yàlla def ci barke Seexul Xadim vraiment ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu